الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal ngi leen nuyu baax kenn ku ne si ak santam ñëw fii tey si Sénégal set di indil leen waxtaan wu am njëriñ incha allah ci njariñu salaatu ala nabi ak naka lañ koy jëriñoo Euh, thème bu njëkk bi nag mooy lan mooy salaatu ala nabi ñaareel bi mooy ngëneelam ngëneelam nag ñaari xaaj lay séddalikoo benn xaaj bi mooy Muhammad ay ngëneelam beneen xaaj bi mooy ngëneelu salaatu ala nabi bu ñetteel bi nga xam ne moo tax thème bi jóg muy julli ci yonent bi ak wërsëg nan la mën a jariñee nit ki si wàllum wërsëgam xam naa nag euh, ay waxtaan lay doon yoo xam ni ajuma wu jot ñu indi leen lenn ajuma tey gi nag ñu tànnal leen julli ci yonent bi ak wërsëg waaye njëkk loolu dañ leen indil kan mooy muhammad rasulullah si ab gàttal rek ak julli ci moom yan jeexit la mën a def ak tagg gi ak julli gi ci làmmiñ lan mooy seen njëriñ ñoom ñaar talaata ala nabi lu yàlla digle la ci alquran yàlla dafa fonk yonent bi salallahu alayhi wa sallama ba tax na mbooleem li nga xam ne yàlla sàkk na ko rek ci daraja yonent bi salallahu alayhi wa sallama la ko sàkkee wax nañ ni yàlla njëkk muy sàkk dara la sàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko lool ba mboolem ku jullit xam nga ni kii la yàlla faral yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi nañ fàttalikuwaat te delluwaat ci moom bu wér a wér a wér a nag incha allah ñu tàmbale ab émission boo xam ni dañ ci leeral ay njariñam ak julli ci yonent bi lan la mën a jariñ nit ki ak tamit ñu moytu mboolem xeeti xam-xam yi xew te dellu ci li baax muy julli ci yonent bi alxuraan ak ay saaram mbokk yi mboolem lu nit bëgg ci àddina di ko wuute ci leneen moo xam ci xam-xam bu ñuul am na ci biir lii yonent bi sallallahu alayhi wa indi am na ci biir bi am na ci biir alxuraan am na ci biir saari alxuraan yonent bi nag yàlla da ko bëgg ba tax mu ne si alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla moo moo moo moo daal na kat yéen jullit yi maa ngi leen di leeral ni te di leen wax si kaw sama kàddu man suñu borom man yàlla ak samay malaayika yi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo yor sama sama sama maanaam ñoo yor nguurug suñu borom gi ñoom la suñu borom teg ñi nga xamante ni mooy maanaam ñu wër a yor ñu wër suñu séesub suñu borom ba ñun ñëpp dañuy julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril salaam alayhi wa sallam day julli si yonent bi mikail day julli si yonent bi israfil day julli si yonent bi hasrail day julli si yonent bi mbooleem lu yàlla sàkk yàlla nag na muy jullee ci yonent bi moom moo ko xam waaye malaayika yi bu fekkante ne dañoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom dañ koo tagg mindeef nag maanaam nit ñi buñ jullee ci bi sallallahu alayhi dañ koy ñaanal waaw malaayika yi buñ jullee ci bi dañ koy tagg waaye ñun nit ñi bu fekkante ne julli bi sallallahu alayhi dañ koy ñaanal mbokk yi fonk gi ka suñu borom fonk moo tax mu ne yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla te gëm bis penc ba na ngeen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yu bari maase nañ ni jullit bi daa war a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si dundam gépp donte benn yoon la waaw donte benn yoon la farataal nañ ko ci jullit bi mu julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo mën a ràmm nit ki yowmal xiyaam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo mën a dañal nit ki si ay bon boni àddina julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom rek moo mën a muusal nit ki ba tax suñu borom daal di wax loolu am na yenen ay alxuraan wa maa kaana allaahu li yu'azzibahum wa anta fihim yàlla nee na du leen mbugal li fii yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi seen biir loolu loolu lu tedd la leen mbugal man yàlla li fii yëg yonent bi moo ngi seen biir du ma leen kaana allaahu li yu'azzibahum wa anta fihim waaw muy kon darajaam lu màgg la ndax yàlla bu yeggee foofu daal na li feeg mu ngi seen rek dina ko rus dama leen buggal Ah, loolu suñu borom moo ko wax muy ay alxuraan bu leer naññi waxat ci beneen aaya daan ne inna allazina yahudduuna aswaatahum hinda rasulillah ulaika allazina amtaxana allahu qulubuhum li taqwa ulaika lahum maxfiratun wa ajrun asim ñi nga xam ne bu ñuy xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala bu toogee moom di waxtaan dañuy damm seen kàddu damm seen i bët ah suñu nee na ñooñu kat defal naa leen yool bu rëy a rëy maanaam yool bu màgg danañ ko am te danaa yokk seen wërsëg man suñu borom kon loolu wor ma la suñu borom nee na képp koo xam ni yaa ngi xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga yëkkati sa kàddu ci moom ba pare damm sa kàddu suufeel sa kàddu jox cër ki nga xamante ni moo toog mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa la yoolal te dinaa la wërsëgal man suñu borom wërsëg bu yaatoo yaatoo yaatoo moom suñu borom ku fonk yonent bi la ndax ay arxaan yu ñëw yu mel noonu bari na ndax boo xoolee yaa ayyuhan nabi la ya woowee wala yaa ayyuhan rasul waaye bu dee yeneen yeneen day jaar seen tur moom suñu borom sàllawu leen yaa Muusa waaw yaa Ibrahima yooyu la suñu borom di wax waaye bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax musta tudd turam jàll ja maanaam sàllawlu ko ñeent yoon la turam ñëw ci alquran waaye ñeent yoon yëpp bu si ne secret la boo xam ni lu mën a dimbali nit ki la ci mbir àddina ndax ba nga koy tàmbalee si ay alquran ba se ko wa ma muhammadun illa rusulun qad xalat min qablihi rusul muy benn nga ñëwaat ci ñaareel bi maa kaani leen maa kaana muhammadun naba ahadin min rijalikum walakin rasulullah muy ñaareel bi nga ñëwaat ci ñetteel bi muy ansalallahu ala muhammad waaw ala muhammadin ci nekk si suratul si lazina kafaru ñeenteel bi mooy muhammadu rasulullah walladina maahu ashidda wa alal kufar muhammad boo kël ki ne 92 la lay jox si wan la nekk ni secret addina ak secret àllaaxira mi ngi yonent bi sallallahu nit kuy namp si weenu yaayam namp gi namp boo ko kël ki ne 92 la lay jox même jënu yaboy sax nga xam ne moo gën a siiw si mboolem jën yi ñuy loo boo ko calculé yaboy 92 la lay jox waaye li ëpp importance yonent bi kenn mun ta dem sans moom muy nit ki bay namp si yoonu yaayam la muy namp loolu ñu ko xadatee da lay jox Muhammad ñeenti Muhammad yooyu nag boo ko calculé da lay jox 368 92 boo ko defee ñeenti yoon fois 4 da lay def 300 da lay jox 368 368 nag lim jàpp dafa bari moo jàpp ursuquni moo jàpp ursuq ni yow yàlla wërsëgal ma moo tax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ko koy def danga bari bëri wërsëg ba yéemu sa bopp muhammad sol muhammad alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam ay maanaam maanaam mooy kan nga neelam lu ñu wax si ñaar rek ba ñett boo xoolee sëñ tubaa nee na la anta la si uhtiita xidman nubuwatan wa aadamu bayna almaai wa tiin yan jëli ndeysaan lu kawe ah, maa wa anta la si uhtiita xidman nubuwatan yàlla jeex na la nubuwa njëkk waaw xidma nubuwatan wa aadamu baynal maa'i wa tiin yanjali njëkk muy sàkk aadama ak xawa njëkk muy jël sax ban ba mu leen tëlee fekk na mu bind la ndax boo xoolee am na Sëriñ Tuubaa di wax daane min nuurihi kullu nuurin saatihum bi sana nuuru nujumin wa nuuru shamsi wal xamri wa huwa alxabibu allasi li ajlihi xuliqat xalaa'iqullaahi kal amlaaki wal bashari waaw waaw min nuurihi kullu nuurin nee na mboolem leer goo gis muy dox si sa si saw suuf ak si asamaan si leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla bindee min nuurihi kullu nuurin saatihum bi sana leeru guy mën di jolle ak la muy mën di jollee rek ak la koy leeral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuuru nujoomin leeru biddiw ngi ko bind ñi ngi leer si biir leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa nuuru shamsi ak jant bi nii muy leeree nii ak tàng lépp ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa nuuru shamsi wal xamari ak weer wi nga xamante ni day leeral guddi gi weer wi bu demee ba toll si fukki fan ak ñeent leer googu muy leer nee na leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si la bàyyi ko kon yonent bi ku tedd la wa huwa alhabibu allazi li ajlihi xulixat xalaaiqullaahi kal amraaki wal basari waaw mu ne nag mbooleem lu yàlla sàkk moo xam jin mbindeef yi moo xam jinne yi moo xam malaayika yi li ñuy tedd tedd ñi ngi leen sàkk ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addina nag yàlla da koo sàkk ngir teralee ko yonent bi sallallahu alayhi wa loo fi gis muy dox rek oto bu rafet kër gu rafet kër gu rafet ak lépp loo fi gis muy dox ci addina yàlla da ko sàkk ngir teralee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax képp koo xam ne da ngay sikkar salaatu ala nabi di ko jëfandikoo lu bari yalla dala yombalal mbooleem li nekk ci addina waaw kon yonent bi ku tedd la loolu sax dinañ sàkk si bu ñu agsee si julli si yonent bi ak wërsëg nga xam ni mooy indi waxtaan mooy waral waxtaan waay lii ak ak ak ak la gu ñuy leeral kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xat jaakum noorun wa kitaabun mubin gis alquran waaw yàlla indil na leen noorun wa kitaabun mubin nee nañ noorun googu xam nga leeral na daan ne alquran wa kitaabun mubin waaw ak téere boo xamante ni bu leer la bu leer la ci ay lay bu leer la ci lépp loo xamante ne suñu borom indi ko tam teg waaye nee nañ am na boroom xam-xam bi bari nee nañ nuurun googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la fi jublu moo tax salaatu ala nabi ku koy sikkar ak gu mën da doon rek dañoo pënte doole nag waaye ak gu mën da doon rek dana la jox ak leer waaw Abraha wax nañ ni ba nga xamante ni jug na di mabbu kaaba gi maanaam mboolem ñay yim àndaloon nangu nañoo dem waaye waaye Abraha ñay yum waroon moo jiitu ña woowu nag moo nekkoon ñay yu gën mag ñay yi nga xam ne ñoo nekkoon si ginnaaw nangoo ñoo dem waaye bi nga gisee mu taxaw lañ taxaw waaye yooyu nangu noonu nañoo dañ la nee la tax ñay Abraha taxaw bañ a dem si daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñay woo wax nañ ñu ngi tudd woon Mahmoud waaw ñu ngi ko tudd woon Mahmoud picc ya nga xamante ne ñoo jóge sa kaw muy aaya muy euh, saaru alxuraan boobu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al kaydahum tarmihim bi hijarati min sijjil fa jaxalahum kahasin makulin loolu wax na ni mi ngi am ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax booba kat ñi ngi sàmm waa mag ngir na fii ay maamu yonent bi ñoo fi nekk te yonent bi ak si gudoon booba kon ku tedd la waaw soxna Astu Gaaw moom Serigne Touba Xaadimu Rasul daana wax daan ne salaatu ala nabi maanaam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nee na mi ngi mel ni ñaanuk doomi Serigne Touba te ku ne xam na ne ñaanuk doomi Serigne Touba luy taxaw soxna Astu Gaaw nee koo xam da ngaa toog du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi mel ni yaa ngi jàkkaarloog doomi Sëriñ Tuubaa mu lay ñaanal te ku ne xam na ni doomi Sëriñ Tuubaa ju ñaan moom buy pare suñu borom nangu ñaan képp koo xam da ngaa toog lu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yaa ngi mel ni ku yor balum teg si palu balub teg si di ko dóor si miir bi te jàkkaarloog moom faaw mu dalat moo tax leer gi nekk si julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kenn mënu koo xayma waaw kenn mënu koo xayma yonent bi daal mbokk yi mooy solution bi ku bëgg koo xamante ni bëgg ngaa noppali ci addina faaw nga jàpp ko koo xam ne bëgg ngaa mucc faaw nga jàpp ko julli ci yonent bi nag dafa am ñaar dafa am salaatu goo xamante ni bil madhi am salaatu goo xamante ni bil lisaan la da koy wax ca làmmiñ wala gi ñuy julli di maanaam nga xamante ni dañ koy tagg si seen xalima ñaar yëpp boo si mën def rek benn la boo xoolee Serigne Touba radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy suñu lépp moom jeexal na dundam gépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Serigne Touba dafa njëkk yegg suñu borom waaye suñu borom dana ko dafa am koo xam ni moom laa jiital bunt bi ku fi ñëw si moom nga jaar Sëñ Tuubaa nag bi nga xamante ni delluwaat na nga xamante ni raama rasulillahi min illahi kaw nii xadimahu wa abdallahi maanaam ba mu ñëwee ba nga xam ba xam ni nag suñ borom kii la bëgg fa la jeexal dooleem moo tax mu tagg ko tagg yéeme yéeme moom Sëñ Tuubaa waaw tagg yu yéeme bokk na si bayit bi ma ko waxoon sànq la anta lasi uxtiita xidman nu ba watan waaw moom moom Sëñ Tuubaa nee na muhammadun zikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru xalbi wa ahdaai wa raahati waaw mahan mahabbati al muxtaara sayidana waaw xubbi xubbi mahaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu habdan xadiman lahu mushkaana li sanada sëriñ Tuba ndeysaan boo xoolee moom nee na salaatu sidda salaatu sitta bi matti sitta tatihi ba atamaati shay nee na année bi at mi juróom benn weer yi nee na dama koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneen juróom benn weer yi ma ko jeexal si yonent bi sallallahu moo Tuba ku gis na cër bi ko suñu borom jox waaye loolu lépp mi ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw Tuba kum raw si yonent bi la rawee waaw Youssouf Annabahani maanaam ku mënoon a tagg yonent bi sallallahu alayhi wa daan wax naan yonent bi kat ñoo ñoo naanandoo léegi ataaya waaw ku daan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëree bëri la te li ko mayoon mooy julli gu bëri gi mu daan julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa maanaam julli gu bëri gi mu daan julli si yonent bi ak tagg yi tax na suñ bi sallallahu alayhi wa sallam ko njaareem fukki at ak juróom waaw fa gana si na ko boo demee di nga fa fekk kees googa kees gu ñu warmaal la goo xam dañ koy tëj lu bari yonent bi mbokk mooy solution bi waaw ku bëgg dem raw say maas da ngay jàpp ci moom waaw danañ joxe nag ay dog incha allah bu ñu si yi nga xam ne moom la war a joxe maanaam boo xoolee ba tey Sëñ Tuubaa nee na man sanna anna al muntaxa muslul wara fa huwa xumrun xalbuhu maanu wila képp koo xam ne da ngaa njort ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mindeef la comme ñun nee na yow nga te sa xol amul dara ci leer waaw moo tax mu rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna wal juudu musri ridiyami waaw waaw loolu loolu loolu loolu tagg yu rëy rëy rëy rëy la tagg yu rëy rëy rëy la waaw àgg na si daan ne ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul am waaw wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zahra wal mithlu xattu lam yura wala yura fi chiyami suñ tubaa moo ko wax nee na ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul am nee na moo gën a mat ci lu yàlla sax wa huwa akmalul wara waaw afaalu tafdil akmalul wara moom lu yàlla sàkk rek moo si gën a tedd xal-xan nag si jikko nii wa xul xan ak si bind waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku def defaloon bind bu rafet la waaw ay noppam dafa rëy te rafet ay bëtam rëy te rafet macha allah ay bakkanam rëy te rafet ay gémminam rëy te rafet loolu lépp Sëñ Tuubaa tudd na ko nee na moo gën a rafet jikko ñëpp moo gën a rafet jëmm ñëpp waaw loolu mislu xattu lam yuraa Sëñ Tuubaa waaw wala mislu xattu lam yuraa wara yuraa fi chiyami ku mel ni moom sax dootut am wala yuraa fi chiyami ñëw dootut am waaw ah, kon mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy solution bi mooy ku mat a jàpp léegi nag ñu ñëw ci julli ci yonent bi ak wërsëg yonent bi kuy julli ci moom li lay gën a yomb mooy xaalis kuy julli ci moom li lay gën a yomb mooy alal ku ne xam na ne alal ak wërsëg bokkuñ alal mooy li nga yor muy say mbir waaye xaalis mooy këyitu xaalis waaye yonent bi boo julli ci moom li lay gën a yomb mooy mbir àddina yi rawatina xaalis ak alal yonent bi kuy julli ci moom am lu bëgg ci àddina waatal ni bala ngaa faatu suñu borom dana la ko jox loo man di bëgg ci àddina te yaa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga ngaa faatu julli ci yonent bi nag muy salaatu ala nabi li si gën a siiw si liñ koy jariñoo mooy di ko sikkar moo si gën a siiw waaye am na yeneen yoon am na si ay yoon yoo xamante ne yoonu bind la ah da koy bind saafara jëfandikoo ko am na si yoon yoo xamante ne yu ñu bind takk la waaye bi gën a siiw si li ñuy jëfandikoo mooy toog di ko sikkar loolu nag dinañ jox ay yoon yeneen ñi nag moom day bàyyi ba beneen jëmmi jamono incha allah wala si beneen jamono ñu xool ba xam nan lañ si waxtaanee képp koo xamante ni yàlla dogal na nga man ko del faral di sikkar lu baree bare bari sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad nag dafa am lu muy jàpp muy 368 moom la waxoon sànq daan ne mboolem ñeent muhammad yi ñëw ci alquran boo leen boolee 92 fois 4 da lay jox 368 368 moo jàpp urzuqni ya rabbi waaw ursuq nii boo ko calculé 368 la lay jox léegi nag maanaam war wërsëgal ma yow suñu borom booy sikkar salaatu ala nabi si siira bii nii muy sallallahu ala muhammad wërsëg dana la yomb lool bokk na si lim yi nga xamante ne nii baax na lool ba jéggi day wa muy 1111 bi muy laa taqaf boo koy sikkar bu ragal dara boo koy sikkar bu ragal kenn bu ragal noon bu ragal bu bég si soppe bu def dara yow xamal lépp loo bëgg suñu borom dana la ko jox waaw loo bëgg ci àdduna ak lu mën di doon suñu borom dana la ko jox li gën a yomb si li muy joxe moom salaatu ala nabi mooy nit ñi sopp la nangu lee nangu laa jox seeni wërsëg nangu laa jox seeni wërsëg maanaam nit ñi da leen la nangoo jox seeni wërsëg waaw te duñ xam lan moo tax te duñ ko sañ bañ ku koy def ba pare ku koy def doon entrepreneur ba tey sa entrepreneur dana dox ku koy def di yëngat si mboolem mbiri addina yi xamal la nga nekk suñu borom dana la sa yëkkati doo si yam kenn ku nga xamante ni ku dul ka nga xamante yéen bokk sa la dox julli ci yonent bi saal mbokk yi lu ama am njariñ la 1111 boobu nag lu ci ama am solo la ak 368 bi am naa ngeen jàpp ko bu wér a wér beneen jamono ñuy joxaat leneen 290 ba tey lu ci ama ama am solo la moom sallallahu ala muhammad nga koy sikkar 200 290 290 ndax 290 boobu moo jàpp salaatu ala nabi salaatu ala nabi boo ko sikkaree 290 la la jox waaw 290 yooyu nag lu ci ama am solo la waaw lim bu diis a diis la ñaaree salaatu gi nga xamante ni danañ ko baaxee mbokk yi mooy salaatul fatiha mbokk yi ku ne xam na ni salaatul fatiha salaatu la am doole suñ mbokk tariixa tijaani fonk nañ ko lool ba seen wérdu sax la bokk salaatu googu nag yàlla mi ngi koy njëkk a jaarale ci yonent bi jox ko mu jox ko Muhammad ibnu Abi Bakar di doomi Abi Bakar moom la ko yàlla njëkk a jox muy allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uliq walxaatimi lima sabaq naasiril xaq bil xaq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi waaw kon moom la ko njëkk jox ba mu si jógee mu jox ko Sidi Ahmad Badawi ba mu jógee mu jox si Ahmad Tijaan Sërif joxaat ko Sëñ Tuubaa waaye bi mu jox Sëñ Tuubaa nag googu moo gën a gaaw si wërsëg la ñuy tëjee waaye ku koy bëgg di sikkar daal lim bi si gën si guddi gi nga def ko mooy 313 ku koy def si allahuma ya akramu gii Sëñ Tuubaa indi da nga bëri wërsëg da nga siiw danga nga mbooloo waaw li gën a yomb si li muy joxe nag mooy mbir addina yi nii moom salaatu ala nabi waaw sa sa sa loo am dina toog sa sag dana yaatu da nga bari barke te kenn du la bañ waaw te kenn du la bañ te ku la bañ tamit du man si yow dara beneen jëm jamono nag mbokk yi dana ñëw joxe ci ay lim yoo xamante nit ki bu ko bindee jëfandikoo ko dana am yeneen mbir yu mu koy jëriñ lu si ne danañ ko leeral ba mu leer incha allah wasalaatu wasalaam ala nabiyillah